noonu la ñuy jëppe kuy wane karaama kër gi xamuñu karaama dund nañu ñoom mag ñi ba xëy jóge fi mosuñu leen a gis kenn koo ci def Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu yàlla defal na ko jagle bi mu ko jagleel mooy lépp loo xam ne dugg nga ca woo ca Serigne Babacar Sy ànd ak dogu yàlla rus na Serigne Babacar ba loolu la dina ko defal waaye amaana muy feeñ ci ay école wala muy feeñ ci yeneen image kooku moom allah kulli alin ak ku ko waxit amul tarixa bi xamul loolu Seydi Hadji Malick dund na ba xëy jóge fi defu ko fi sëñ Babacar dund na ba xëy jóge defu ko fi njabootam muy alaaj Mansour alaaj Abdou ñëpp dund nañu ba xëy génn naaj mosuñu wane karaama fii réew mi toll mën nañ jàpp ni seytaane nag mën na yàq dindi pas-pasu nit ci côté bu ne waaw xam nga euh, nit ñi exactement fi ne dañu toll foo xam dañu sawar ci wax garmi boo bëggee xam Serigne Babacar ah. laaj ma ko mani la Mm. mooy borom bu kaare bi. mooy kan du ko wengal du ko jengal fam ko ah. tegoon la koy teg ren. Serigne Babacar borom sacré yàlla bi baaba Babacar. borom listiqaama fa la yam Serigne Babacar borom lion d'honneur yi Serigne Babacar borom manto bi Serigne Babacar xalifatu ma bayna samawati oh. wal ard Serigne Babacar xalifatu ma ul bihaari wa ma wala baari eh, eh, eh. Serigne Babacar borom kek borom reg borom rag oh. borom